jël seen. Euh. kenn di jël seen. saa yi daanaka foog saa yi ah. boo gisee sëñ Mountakha mooy génn si. julli na ba pare bay génn si ñoom. mbàkk bari ak day day day taxaw fii dara ji. ah tax a génn mu def

Akbar ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne taw feex Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international